loolu ñu takk sa baat bi dañ ciy génne kitaaban benn téere mu mel ni ab note wala bokk ay not wala fiis yi nga xam ne moom la xale yi def ci examen yi yalqaahu nee na mu taseeg téere ba man manshura mu nekk lu ñu wasar te saare ko mu leer naññi leer naññi yow diw yaa ngi ñëwoon adduna dëkk sàng waxtu sàngam dëkk sàngam mu ñëwoon adduna diw doonoon sa wajur wu góor diw sa wajur wu jigéen ba nga ñëwee adduna sa fukki at ak juróomi njëkk lii nga def fukki at ak juróomi nga def fukki at juróom ci tege lii nga def fukki at ak juróom ci tege lii nga def ba ngay génn àdduna fii nga génn àdduna nii nga génn àdduna lii nga wax ba ngay génn aduna téere boobee du bay dara moo tax yàlla ne dañ lay wax ne iqra kitaabaka jàngal sa téere iqra kitaabaka liiral sa téere nga gis kenn ku nekk ndeysaan tàmbulee liir tiiram ñu ne ko kafaa bi nafsika doy na la tey kafaa bi nafsika doy na la al yawma tey alayka ci yow xisaaba réglé sa téere bi doy na laa réglé maanaam yow man ngaa régler sa bopp mbokk yi élève lu ko professeur am raw raw ci njàng su ko joxee not prof bi xam euh, élève bi xam ñaata lañ ko noté mook étudiant kun ci jox say note rek boo ko lemmar cee xool da nga xam liñ la noté da nga xam ndax jàmbaar nga wala déet da nga xam yaa tappale wala déet tabarkalla kafa bi nafsika yow foo jëm ndeysaan boo gisee ku lem aw kayitam bu yeba nga xam ne at minut yow ma la xëyamat koo seen mu xool ab téeréem nga séen mu lemaat ko seex ko ne la wóor ne at mi wut naka noonu ci classe bi boo laajee professeur yi koo séen mu nga jox ko dictée mu yooyu mu daal di koy lem ba mu jekk seex ko mbaa mu lem ko xotti ko naan xale yi lu ngeen may xoolee ne la wóor na lam def baaxul waaye mbooleem ñi baax le bu liire ba noppi dañ koy teg ci seen taabal nii puus ko fële nag di xool pour seen morom mi seen wet xool ko iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal xiyaam kenn du jàngal sa morom téere amul kenn koo xam ne dañ lay jàngal si téere yow yaay jàngal sa bopp déggal iqra kitaabaka baatu ka la boo xam ne bii day wax ki nga jàkkaar lool iqra jàngal sa téere góor gu ne jàng sa téere bopp jigéen gu ne jàng tabarkalla kenn ku nekk jëkkër jàngub téeréem jabar jàngub téeréem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkalla maa ngi suratul isra'i aaya fukk ak juróom yàlla nen man ihtada ku ne ci njub fa innama li fi nekk na fi nafsihi boppam la jubal ku ne ci njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ne ci ko yi aaya fukk ak juróom yàlla nen man ihtada ku ne ci njub fa innama li fi nekk yahtadi li nafsihi boppam la jubal ku ne ci njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ne ci kaw réer fa innama yadillu alayha la mu sanku bakkanam koy añe jeex na takk ni ma leen ko waxe woon ca dars bii weesu suratul israa mooy saar bi gën a bari ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim mu waxoon leen incha allah ci risaalu saqaleen yëla ca kanam ñu leen ci ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttan suñu borom subhanahu wa taala bu ko dogalee waaye daal fii li yàllay wax ngi jëm ci alqada wal muy nattu ak dogal nattu ak dogal da ngay dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg waaye dafa am sara nit ñoo xam ne dañuy wax ni lu am nit kee loolu itam dëgg la waaye dafa am sara moom alqada wal qadar nag bindkat yi dañ ci dul xuus dañuy yem ci rek ci na lu am yàlla waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min surati alfatiha ila nnaasi lim fiy wane lépp soo ko boolee day wane ne doomu aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def daf ci am yoo nañ ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam ne dafa mën sukk mu di ko def man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xiir dagg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xiir ci jël yëfu jàmbur déedéet yàlla du xiir nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal man ihtadaa ku tege ci njub fa innamaa yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njub santal yàlla wa man dalla ku tege ci sànkute fa innamaa yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee nga ne ah yàlla ne waawaw du bakkaaru waaziratun bakkan buy bakkaaru wisra uxra bakkaaru beneen bàkkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añe bakkaaru bakkan bee yàlla ne na lu moom du am mukk lii nag ab luwaa la boo xam ne suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaaxira luwaa adun nag luwaa nature bi mooy daw mooy alqa alqawaanin alkawniya fii li lii daw àdduna mooy ay du yem ci bopp boroom mooy loi bii daw ci àdduna ay du yem ci bopp boroom loi bay daw àllaaxira nag mooy bàkkaar du war loos moroom ja ñaari ñaari affaire la alxuraan dafa njëkk ne wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina salamu minkum xassa moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem ca ña ko sooke loola mooy àdduna su alaxira wala tasiru waasiratun wasira uxra bakkaar du war loo ja kon fii ci àdduna loi bële mooy walaabal fii ci alaxira loi bii mooy walaabal ñaar yi nag deesu leen jaxase ay dem ci bopp borom fii la yem bakkaar du war loo ja fële la wala tasiru waasiratun wisra uxra jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wóor ne ba alaxira moom dong nga tabarkàlla jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt ne la wóor ne ba àllaaxira moom dong nga wala taziru waaziratun wisra uxra góor goo fi seen mu bënn nopp ba def ca jaaro ne la wóor ne ba àllaaxira moom dong nga góor gu fi léttu it su àllaaxira yow dong nga wala taziru waaziratun wisra uxra tabarkalla te waxoon naa ci waxtaan wala tabarkalla la leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii eh, jigéen la taba ak jigéenam kon bokk xam ne kii jigéen la yàlla mu muazzabiina di duma wenn xeet xatta nabaasa lu dul dañoo yónni rasulan ab yonant ca xeet woowee allahu akbar maanute yàlla subhaanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yónent xeet wa ñëw ne yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaaraka wa taala daan ba takkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen yonente ba daal tekk ay bagaasam suñu borom subhanahu wa taala leen duma ñoom ñëpp yàlla nen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaa miim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskat ya yàlla nee na fu mu nar a duma aw xeet ñay noosey jiitu wa isa aratna suñu nammee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha nooskat ya maanaam mutrafiha kat ya ñu seen xel di nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa su ko defee ñu daal di fasaq fa fasaqu ñu daal di jàdd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fii haaj nee na réew ma fa xaqa alayha alqawlu waxi yàlla ja daa di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammarnaaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñépp ñu alko yàlla mu ne wa kam ahlak naa ñaata la ñu alak minal quruuni ci ay xeet ci aw nit min baadi noox ginnaaw noox alquruun jam u xarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee xarnu nag ña nga cay jublu ñu dund ci biir xarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nooxin ginnaaw ba noox demee jamono noox yàlla alak naw xeet ginnaaw noox yàlla alak na xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ñu jiite xeet wa tabarkal la ku mel ni namruus ku mel ni eh, ay moroomam firawnaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nekk seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rabbika ak sa boroom bi i ibaadihi ci bàkkaari jaamam yi xabiiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkalla yàlla ne man kaana yuridul aajila ku tax a jóg suratu isra'i aaya fukk ak juróom-ñett man kaana yuridul aajila ku àdduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiihaa ci àdduna ma nashaawu lu ko neex ba saax saaxee ko fi yàlla nee na koo xam ne àdduna rek moo koy tax di jóg kër kër yoo seen muy kër kër yi àdduna tax yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiihaa ma nashaawu dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii ma nashaawu li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne àddunaa ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye li man nuriidu ci koo xam ne kii namm nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw gu ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw gu ñu defal ko jahannama sawara jahannama yaslaaha dana ca dugg mazmuuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàq ko ci yërmande yàlla subhanahu wa moo tax àdduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkalla suñu góor ga ca kokki Ahmed Saxiir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sippu jiin te sipp ba kowe lool boppam mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkalla dal yu kowe lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci tàkkusaan gi sëriñ bu woo ko ba mu ñëw ni ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yuuxu ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy ay jii rek mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla melu ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu séenee moromam doomu yor essence tuur ci kawam yor almet gu tooy di kos la nga war def mooy nga waaxu ba fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almet gu tooy googu yi ndax bis bu almet gi tàkkee rek ay yéreem tàkk tabarkal yàlla neen wa man araada al axirata ku al'axira tax a jóg wa man araada képp ko namm al axirata al'axira moom daal al'axiraam jag la bëgg benn wa saalaha mu liggéeyal al'axira saayaha liggéey ba ca yey ñaar adduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiha ma nashaw moom amul jafe-jafe alaxira nag yàlla daf cee teg ay sart mooy man araadal alaxira muy al iraada muy benn ñaareel ba wa saalaha saayaha mu jëf-jëfi alaxira muy ñaar ñetteel ba waxu mu'min fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla ñett yi mooy daje ci mbirum alaxira léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du liggéeyloo comme nar ta fay ah kay yàlla dina liggéeyloo nit ba noppite du ko fay loolu la alxuraan moom loolu la xam wax jee nag waxi wolof la waaye alaaxira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw alaaxira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax alhataaka hadiisul xaashiya wujuhun yawma shin xaashiyaat luñ cay teg aamilatun naasiba waaye tas laa naaran xaamiya lu tax ndax charte moo matul yàlla fii dalay wan lu waay liggéey liggéey bu charte yi matul bu yawmal xiyaama doo añ wa man araada al du doy wa saa laa sa'yahaa du doy wa huwa muminun du doy lan mooy doy araada al wa saa laha sa'yaha wa mu'min ñett yépp ay doy wa mu'min nag moom lañ mujj waaye ci yi am solo la bokk lan mooy wa huwa mu'min moo di fii ñu nekk tey di escaf tabaarakallaahu yal na yàlla gën koo barkeel te gën koo yaatal soo xëy si woon suba bi nga agsee rek nga daal di laajte kenn ci ñi fi nekk mu daal lay wan benn barab bu ñuy liggéeyee ngay liggéey indiwoo ay kayit directeur la kenn xamula fi boo moytuwul sax yow foofu lañ lay jàppee léegi daal lay yóbbu foo xam ne fii boo moytuwul danañ la fa sonal kon yàlla kiy jëf ngir mu fay la dangay ñëw ba defar say kayit ba kayit di baax lan mooy kayit di baax mooy islaahul imaan wala tasxiixu imaan yi ba gëm yàlla defar sa pas-pas ba mu leer nga tàmbali nag ñett yooyu door a ànd fa ulaayika kaana saayuhum mashkura yàlla nee na kullan képp ci ñaar ñii nag kullan képp ci ñaar ñi këy liggéey ngir àdduna ak kii liggéey ngir alaaxira ki gëm àdduna dong ak ki gëm alaaxira dong kullan képp ci ñoom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tëbb ay may haawulaahi ñii di jëf ngir alaaxira wa haawulaahi ak ñële di jëf ngir àdduna dañ leen di dolli min ataa i rabbika ci samay boroom maanaam yàlla nit dina ñëw ngir àdduna di jëf ngir àdduna nar a dem sa a yàlla nee na du tee ma lay tëb ni may xéewalee ndax xéewali yàlla subhaanahu wa taala du yem ci ki ko nangul dong déedéet ndax kon su boobaa ku julliwul boo jëlee 1000 francs 1000 francs dalay gantu ne kon su boobaa jigéen ji yendoo taasu ba ngoon jot boo jëlee 1000 francs 1000 francs day wax ne du ma ko nangu ndax dangaa gàntul sa borom subhaanahu wa taala waaye nit lu mu sàggan sàggan bu yoree 1000 francs 1000 francs nangu loolu lay tegtal yërmande suñu borom subhaanahu wa taala bu ñu demoon yamal xiyaam nag loo ya fay dox mooy ku jël 1000 francs ba koo liggéey 1000 francs di wax ah déedéet parce que nanguloo woon yàlla subhaanahu wa taala kon kullan nu middu haawlaahi wa haawlaahi moo tax dangay gis ku nekk ci li yàlla yi tere noppi bëri le nga koo xam ne kii la yàlla yi digle ca la nekk tuuti le foofa du ab nattukaay moom daal wa maa kaana ataau rabbika maxsuura wa ma kaana musta nekk mukk ataau sa may borom maxsuura di lu ñuy tëj rek téye ko ci aw gaay ne yéen yéen a baax kon yéen a koy am <laughs> déedéet tabarkalla léeg-léeg nag ndey saan dina ñuy natti noonu bu ñu la gisee nga oto bu rafet ñu defee ne yow tabarkalla jege nga sa borom waaye jege sa borom nekkul ci mbubb mu rafet nekkul ci oto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gàtt wala mbub mu tilim Omarul Fuutiyu tabarkalla radiallahu anhu da doon wax ne bariwaana nga séen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaamu waat suñu borom fekk ko ci la muy waat waaye nee na bariwaana nit romb la di diri garam bu yëg daraay muy wootu ci suuf nee na la boo demee ci suñu borom moo mbirangaan ñoo fa tolloo daraja loolu itam ab hadis la boo xam ne bi yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci la musal yàlla mu ne umsur xoolal rek kayfa baadahum lenn ci ñoom ala baadin teg leen ca la ca des mu ne xoolal àdduna nit nit ñi gënantee nga seen kii sol yére yu bees taq kee sol yére yu tilim nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ca super ba fay cent nga gis ko dugg ci super fay cent benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale nga gis koo xam ne kii tabarkàlla bu taxi bi waxaalee lim yor bu taxi bi ñëwee lim yor bari na ba moom du waxaale taxi day jël compteur nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la war oto yu bare bari tabarkàlla yim yor yëpp munta xëy war yëpp noonu la yàlla def adduna unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'din nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs la yóbbu ndeysaan jënd buy jënd daqaar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu mu mu mu yëngal daal di naan la nga gis koo xam ne tey bi muy dem otoo ko yóbbu ab pasero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg ya muy dugg fii ak fukki fan ak juróom dootu dellu marché tabarkalla xoolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa àbb yem sol am koo xam ne kii bayam tey su ko ubbi woon yére yaa ngay wadd waddi par benn unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd tabarkalla ak yeneen ak yeneen waaye yàlla mu ne walal axiratu giñ naa ne su alaxira alaxira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lente foofu moom nee li ngay gis fii la nga gis fële moo ko raw ndax fii loo fi gis lu mu la yéem yéem suñu borom subhanahu wa taala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu danga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci barak bu doy waar lay fanaan benn waaye nga ko tiim ak étage bu kawe waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool nga gis koo xam ne kii tabarkal la étage yi mu dëkkeek ak ngelaw la neex na lool kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaan axara beneen yàlla ñaar fukk ak ñett mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaa an aaxara jeneen yàlla maanaam laa tajaal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilaahan aaxara jeneen yàlla soo ko defee fa taquda dangay toog fi nga toog doo avancé mazmuuma nekk ku ñuy xas maxzula nekk ku ñu geccil tabarkalla dégg nga ni suurtu Israa di faje wàllu tawxiid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taqaw da mazmuman maxzula maxzula mooy gecci gecci mooy ku ñuy seetaan koo xam ne kii loo dugg yàlla day wax ne man de su ma yónni ko ci li nga dugg te ku yàllay seetaan ca la nga dugg doo ci am ndam mukk la koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taqaw da mazmuman maxzula tabarkal suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca al isra wal mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko day baaxal ab ànd dafay baaxal al alaqaat al ijtimaaiya muy rapport yi dox suñu diggante ci wàllu nekkin ci wàllu dundin yàlla nee na surtout isra aaya ñaar fukk ak ñett wa rabbuka sa borom digle na waqadaa digle na rabbuka sa boroom allaa taabudu ci ngeen bañ a jaamu illaa iyaahu ku dul moom loolu la yàlla digle bu kenn jaamu ku dul moom wa ñaareel ba ci yem digle bil waalidayni ñaari waajur digle na ca ixsaanan ak rafetal dégg nga bi yàlla noppee moom ci al ibaada nee na loo ci teg mooy rafetal ci sa ñaari waajur rafetal ci sa ñaari waajur bari waa na koo séen mu yor ay dossier bunt bu mu fëgg bunt ya lànk la ko ko teg ma nga jóge ca ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñaari waajuram ndax fam leen teg def leen faa wër te teg yàlla dalay jàngal nan ngay yore sa ñaari waajur te nag li gën a jafe ci àdduna si mooy xaw a am dara te say waajur amuñu dara walla xam dara te say waajur xamuñu dara mbaa nekk dara te say waajur nekkuñ ca loola saa bu defee rek seytaane moo lay xeebloo say wajur te lu say wajur nekk ba nga fekk leen ca ñaare loola jig na leen tabarkalla wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaa wa bil walidayni ihsaana ñaar ñetteel ba yàlla mu ngi lay digal nag mu ne imma benn su ñaari wajur yablughanna indaka alkibara ahaduhuma yablughanna mu jot indaka fi yow nga fekke ko ci dund alkibara ak mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp fi jafe-jafe ji amee mooy bu sa jur wu góor nekkee ci ak mag mbaa sa jur wu jigéen nekk ak mag aw kilaahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund te nekk ak mag su booba yàlla mu ne falaa taqul lahuma bu leen wax fin mbas bu leen wax uff gis nga jur bu ci kenn nekkee mag tabarkalla lu tax yàlla indi falaataxul mooy wax ak sa jur dafa jafe rawatina soo amee lum amul wala nga yaakaar ne amu ko mbaa nga xam lum xamul wala nga yaakaar ne xamu ko mbaa nga mën lu mënul mbaa nga yaakaar ne mënu ko te loola nga xam mbaa nga mën ko mbaa nga am ko mu jóg ci seen barke ñoom ñaar waaye seetaane moo la jëm woon nañ ñii yàlla supérieur yàlla mu ne su boobaa wax day bari te it am màggat day bari wax màggat mu bariwul wax moom amut te nu nit gën a màggate gën a bari wax nu nit gën a màggate rek la gën a bëri wax gën a naqaree yor kon nag su boobaa falaa taqul lahuma uf bu leen wax uf waa ji ñëw ne sëñ Fallu ne ko man de sama wajur wi daal wu jigéen wi dafa lakkale lool moom daal tabarkàlla sëriñ ba ndeysaan sëriñ Fallu Mbàkke ku mënoon a tontu la ne ko dana jooy guddee sa wajur wu mag dana jooy guddi mu ne ko addideen ah, Mbàkke mu ne ko demal toppatoo ji ndax yow daa nga jooy guddi ba teekoo nelaw comme moom tàmbalee guddi jooy rek tegagula lu métti tabarkàlla falaa taqul lahuma uffin te baatu uff gis nga ni mu neexee wax bis boo sexee sa tuñ yi mer soo ko walee rek nee nga sa yaay uf te boo ne ko uf mën ngaa dem sa war kon mer ci seen kanam sax jaaduwul fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen gëddit waxul lahuma na nanga leen wax xawlan karima wax ju tedd wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma na nga suufeelal leen janaaxa zulli mbaggum toroxlu min arrahma mbagg mu jóge ci yërmande waxul dee leen ñaanal naan rabbi yow sama boroom borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàlla nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama nii nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo mën di toll kon diggante soo soosi suñu borom tabaaraka wa taala rabb na fi àq yu baree baree bari yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom waxi njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom waxi teraanga oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom-ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw yàlla nee na rabbukum seen boroom moom rek alamu moo xam bi ma fii nufusikum li nekk seeni xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari waajur yàlla nee na xam naa ko in takunu saalixiina bu ngeen baaxee la lana ca seen xel ngeen defal seeni waajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loole xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awaabiina ci way dellu yi ci moom xafuuraa di baalekat soo defee ci say ñaari wajur menn mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuwuñu ko noona ci réeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkal waaye cey boo teyee su ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo maggee da nga am doom ju la dënge yonent bi nee na koo séen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg foofu sallallahu alayhi ne la wóor ne moom daara ñaanoon mu ne ko suuf ceg moo tax waaja dafa xëy ne papam def koo lakkal daal di jël ndeysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu euh, dëkk ba nga xam ne booy génn dëkk muy barñi mu daal di ko fay wàcc bëgg a dëpp bàyyi ji di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci barñi fayow ma la nga xam ne moom laa defoon sama pap rek ndeysaan xale bi daal di jooy daal di koy delloo siwaat ci dëkk bi tabarkàlla la di ko fi teg nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papam ba puut doomam jël ko sànni ko ba barñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon jàllaloon sama papa ndeysaan la kon yàlla alamu bi ma fi nufusikum in takunu saalihiina bu ngeen baaxee tey def lu baax daal yàlla xam na fa innahu kaana lil awaabiina xafuura yërëmikat la tabarkàlla yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qadaa rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa nag boo baaxee say ñaari waajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggum yërmande tey di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu àq yim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tànta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xarit yi bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xarit yi yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa jur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néeg ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba danga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgg mu la koy jox moom wal miskiina miskiin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskiin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowooxee te nga yor nga jox ko loola nga ko jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am lool la yàlla jox axniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni moroom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu axniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko axniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqiir ya miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man duma ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moo ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maun nee na koo gis du yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukadibu bi diin fa zalika alladi yadou ulyatim wala yaxudu ala taami almiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fóotal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooku yàlla nee na booy seet ku gëmul àllaaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul àllaaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la foo gisi miskin rek na nga xam ne alquran ci suuratul isra yi aaya ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wab na sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wajur noppi ci say mbokk noppi ci miskin aji tukki ji sorim réewam donte daa bari alal waaye dafa tumranke nanga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji nanga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen aq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabziira ak saax-saaxee tabziir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la am saax nag mooy koo xam ne mu jox la koo xam ne ku la jay rek nga jox ko yàlla nee na bëggul am saax tabzir mooy al infaaxu fi gayri xaq waaw mujahid nee na law anfaqa insaanu maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi xayri xaqin kaana mubassira mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka wa taala kooku nekkul am saax mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi pepp képp def ko fu jaaduwut su boobaa nekk na am saax bi ma maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fóoral wala yu demee ni ki yooyu nga dimbalee ko ca abal ko fiil fiil googu nga ko abal yaa ngi bokk ci innal mubazzirina kaanu ixwaana shayatin soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble yaa nga ca bokk soo ko mayee trois cent ngir mu dolli ca la muy jënd yaa nga ca bokk waxuma laa nag soo ko mayee cent mille ki cinquante mille waaye soo jëloon trois millions trois milliards fekk lu ñuy def fii sa sabilillah ab école maanaam jàngukaay wala ay dongo walla yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca loola lu mu bari bari mujaahid nee na bokkoo ci mu mubazirina yi yàlla nee na wala tubazir boo dee joxe bul saax tabzira am saax mooy joxe fu dul ak ñu jay la waaw waaw tudd la fii tudd la faa wax say maam wax lii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe yàlla nee na noonu nag moom bul ko di doxale ndax jéggi nga koo xam ne mu gën a soxla woo alal jooju te kooka laa nga jox ko kon boo moom bul ko di doxale ndax jéggi nga koo xam ne mu gën a soxla woo alal jooju te kooka laa la wax nga jox ko kon boo joxee keneen ku dul kooku yaa ngay tooñ li tax ma lay tere di tabsir nag mooy innal mubassirina yàqkat yépp kaanu dañoo bokk nekk ixwaana shayatini mbokki shaytaani mboolem koo fi gis muy dépenser alalam di ko joxe foo xam ne fii du yoon yàlla subhanahu wa yàlla nee na kooka booy wër mbokki shaytaane nee ko yow ci mbokki shaytaane yi nga bokk yéen a bokk ndey ak bàyyi wala yéen bokk ndey wala yéen a bokk bàyyi wala boog programme bi shaytaane tëral yaa ngi bokk ci ñi ko ciy jàppale su bu fekkee ne am na parti yaa nga par ci ab partim bu fekkee ma ngay campagne nga ànd ak moom moom cheytaane wa kaana cheytaanu te cheytaane nag yàgg naa nekk kafuuran li rabbihi di ko weddi boromam ku nekk mbokkam ku weddi nag boo moytul mu dugal la ci weddi ga loolu kon mooy bind bi yàlla teg ca suñu borom subhanahu wa ci aayab ñaar fukk ak juróom-ñett ne wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a dumóoyu danga leen a dumóoyu miskin bi daa ñëw ne la lillahi wa rasul ibnu sabil bi wan la boppam zal qurba mbokk mi wan la boppam ndax sa mbokk mi nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin moo la koy wax ñaare yàlla nee na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da danga leen a dumóoyu ibtigaa yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa di ko sakkoo rahmatin min rabbika yërmande bu jóge sa borom tarjuha nga di ko yaakaar maanaam yaakaar ne su loola ñëwee nga mën leen a jox seen àq ca loolee su boobaa faqul lahum na nga leen wax xawlam may suura wax ju jàppandi soo yorloo saraxe dal bu nit ñëwee nanga ko wax xawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëriwaa na kuy joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw danga ma koy muñal wala sarax ba yàgg na wala bu subaa nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysuura na nga leen wax wax wi njëkk alxuraan nee na bëriwaa nag ngànt lu gën joxe bëri ngantu lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci bindu tey bi yàlla nee na wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ilaa unuqika ci sa dox gi bul takk sa loxo bi ci sa dox gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wolof day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ca kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo koy dugal sawara kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ilaa ci sa dox gi ah, kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag ku lal bast gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu la yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taquda da ngay toog benn bés ma man di ko ñuy yedd maxsuura nga nekk kuy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am léppit dangay nekk maluma di ku ñu yedd dangay nekk maxsuura di ko xam ne kii dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon dey duma ko defe nii ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xarit léegi yàlla mu ne bàyyil xel ko ni ngay joxe bariwaana ku amoon ba bari la lool bari ay xarit ki àndandoo lool du wéet mukk waaye bi mu tàmbalee ñàkk xarit yooyu tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko te ki gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ki amoon ba ñakk dama aadama yi daal lay wan ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikkoy weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu wow ñu dem yàlla mën a yóbbu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wàññi di denc di bàyyi ëllëg xel waaye del joxe it li ëpp waaw alxuraan lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal ma des na koo joxe lu desul nag nga jëfandikoo inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal a risqa wërsëg li ma yashaawu ci ki neex wa yaqdir moo koy xatalit ko neex waaye yabsutu ma yashaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam yépp xabiiram basiira di leen di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci xadiisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la gu wér xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk alal la ko gën alal jooy fajoo ñàkk alal la ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da ñaan yàlla fukki junni ak même amee fukki junni ca la damm damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamee noonu daldi di noppalu beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xasiyata imlaaqin ragal ñàkk naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooyee nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk aaya jii am na aaya ju ko jiitu woon ca alquraanul karim ca suratul an'am nga déglu ni suñu boroom tabaaraka wa taala tëggi aaya fii ak na ko tëggee fële moo tax boo demee ci mu fassiruna yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am daf ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum lu tax fële mu ne woon nax nu naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoog soldam wàllu rey googu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaare du jël paaka teg ci baat bii rendi ko rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu deme ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du juddu léegi léeg nga jël appareil def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ki yooyu yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor nax nu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa ak doom yay ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne nax nu ñun ñoo leen di wërsëgal wa ak yéen bàyyi kon jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ku yor sa bopp tabarkalla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkalla benn base muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab budget bi mu la watee wateeloon ñëw yët ko sa patron boobee kon budget boobu mu ko yët moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jërul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu la ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa tabarkalla wax la joo am solo euh, le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom yàlla nee na inna qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day xitaan di njuumte kabira gu rëy rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola daal xita ñoom ñoomte la kabira gu rëy doomu aadama day am ay doom yu baree bari ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am doom ju la yàlla natoo doom jum la faye ak doom ju la doon danga gis ko jur ba am ñeenti doom doom yépp nekk nattu waaye danga gis ku jur ba am ay doom yépp doom yépp nekk tabarkalla euh, payu yàlla doom yi gën la waaye léeg-léeg nga jur doom yi yépp mel ni yow ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe du ñu am wala du ñu juddu nee na ci njuumte lu rëy te nag naqari jamono du a yee ko def mag ñee naqari jamono du gone yee ko def mag ñee bay mbay jaxate nee na àdduna yàqu na kat gone yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere waaw mu ne àdduna yàqu na kat gone yi yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul ba ci yàlla jógee mu ne wala taqarabu te bu leen jege azina njaaloo wala taqarabu te bu leen jege a azina njaaloo yàlla mënoon na ne wala tasnu te bu leen njaaloo waaye njaaloo daa xaraam jege njaaloo xaram fa tàmbalee ci jege njaaloo mooy allams laal sa loxo bi ci yaramu jigéen ju dul sa jabar dafa xaram ku ko def dangay am bakkaar ndax ubbi nga buntu njaaloo yaa ngi jege njaaloo naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ngay ubbi buntu boobee wala taqrabu zina bokk na ci jege njaaloo alxubla mooy akolaat jigéen ci tuuru danga koy nuyu wala nga jox ko kado loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo te yàlla nee na wala taqrabu zina te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbeekoo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira bokk na ci jege njaaloo an mooy xoolante xoolante boo xam ne dangeen nekk ci biir mbooloo ku jigéen ki xool ku góor ki ku góor ki xool ko ñuy waxante ci ay bët loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaalo moo tax Ahmed Achawqi wala Ahmed Chawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa btisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaw nee na li tax yàllay aaye njaalo ba mu koy aaye aayewul moom jëf ji xanaa mu aaye jege ga moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yi yóbbu nit ci njaaloo bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet mën a yàq am réew mën a yàq économique la ca nekk lépp suñu borom xam ko moo tax mu ne bu leen ko jege ndax biñ tàmbalee faj sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi biñ tàmbalee defar biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu adama yi wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo innahu njaaloo de kaana nekk na faaxisatan di njombuteef aw njombuteef la wa saa asabila te yoon la ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom aadama ci àdduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne ji tëkkoo yaayam innahu kaana faahisha wa saa yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaye fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla def koo araamal ku ko rey illa bil xaq lu dul ci dëgg moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam jullit la moo xam du jullit allahuma lu dul ci njumte wala bokk ci xeex xeexul islaam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bi illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen jullit yi na ngeen ma reyal bakkan yooye su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal wala góor goo xam ne wala sax nit nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu fardu kifaay yi la bu ñu demee suñu borom tabaaraka wa taala dana def ci ñun lu toll ni rey loolu mooy illa bil xaq kon ñoo ñépp dagan nañoo rey yàlla tabaaraka wa moo ci joxe ah, moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen yàlla mu ne waman la képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaal naa defal nañu li waliyihi faqad jaal naa defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag fala yusrif fil qatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey gi innahu moom waa jooju li def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaaraka taala moo ko dimbale kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko aqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate walla nga koy mbéj ndànk-ndànk wala nga koy téye mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka su du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaaraka wa taala da lay wax ne loolu nga def du yoon dangaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi ko reyen woo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaaraka wa taala tëral ci lu kon suñu borom subhaanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd di mi ngi ñuy jàngal ñaar yépp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgguñu ñu bàyyi jikko yu tedd di mu teg ca ne wala taqarabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alal li jirim bu leen jege mukk alal li jirim illaa lu dut billati ca jege wa nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet jirim mooy ku baayam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mën a loogul boppam dara kooku mooy jirim alalam ji baayam bàyyi mu war ko donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla nee na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqrabu maalal yatim illa billati i ahsan bu leen ko lekk mukk nangeen ko ko dencal hatta yabluqa ba mu jot ashuddahu dooleem ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yuxsinu tasarruf fii maalihi su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di koy wutal ay seede waaye am ab jirim mu bàyyi alal baayam bàyyee ko alal nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci tiru ne damay nekk boroom këram wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni ko yooyu ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man danga ko réccu wa aw fu na ngeen matale nag bila ahdi ci kóllëre ku siqati kóllëre nit mbaa nga siq ko yàlla neen na nga matale kóllëre googa ndax inal ahda kaana mas'ula kóllëre dañ koy laaj bu yomal xiyaamatee ñi nga xam ne ñoo ko siqul kon ku siq nit kóllëre moo xam sa diggante nit ñi la moo xam keneen la na la wóor na yomal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon nag nit ñi ci kóllëre ndax sàmmoon nga ko ndax defoon nga ko yooyu tabarkalla dañ koy laaj yàlla nee na wa aw awful kayla na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché wa awfu na ngeen matal alkayla natt gi isa kiltum su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt marché dafa am ñaari njaayin njaayum natt ak njaayum peese mu ne wa awful kayla na ngeen matal natt gi isa kiltum ba ngeen dee natt am na ñuy toog yor pot di natt ceeb am na ñu toog yor pot di natt gerte am na ñu toog yor pot di natt pepp ak yu demee ni kii noonu nga xam ne dañ leen di natt am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti na ngeen matal natt natt ga wasinu ngeen di peese bu ngeen di peese bil qistaasil mustaqim ci ay ay peesekaay yoo xam ne yu maanu la yu jub la bul fab boo xam ne poids bi dafa diis gën a diis mbaa mu màggat mbaa nga yokk ci ay sagar mbaa nga yokk ci leneen bis boo jëlee comp jaambur def ci sax al comp soosee nga ca def mooy yàq sa alal ji wasinu bil qistaasil mustaqim zalika nee na yii may wax de xayrun mooy li gën wa axsanu tawila moo gën a neex a nettali li moo gën wa axsanu moo gën a neex a tawil moo gën a neex a firi moo gën a rafet am piri jaar fi yàllay jaarlu subhanahu wa taala axsanu maalan fi l moo gën nekk tawil fa mujjuwaay bu àlaxira tabarkalla ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul luññutu wala taqfu bul luññutu maa laysa laka bihi ilmun loo xam ne amoo ca benn xam-xam bul fekk loo amul benn xam-xam nga tàmbali di ca jéema luññutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéema càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam sa yoon nekku ca lu sa yoon nekkut na nga ca génn moo tax xataada day wax ne laa taqul raaytu walam tara wa samitu walam tasma wa alimtu walam taalam fa inna allaha taala saailuka an zalika kulli ba dama ci almuxtasar euh, libnu kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom noonu la ko xataada waxe bul wax ne gis naa te gisoo bul wax ne dégg naa te déggoo bul wax ne xam naa te xamoo wala taqfu ma laysa laka bihi ilm loo xamul nee ca cell loo gisul gumba ca loo déggul dox ca lu tax inna samaa ndaxte dégg wal basara ak gis wal fuaada ak xol kullu ulaika ñii ñépp kaana day nekk si yowmal xiyaamee masulan anhu di ku ñuy laaj bi yowmal xiyaamee alxawaas yii ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo bët li nga xool ku la ko xoolloo xool li nga xalaat li nga fàggu ci ji ku la ko fàgguloo inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaayka kaana anhu masula moo tax ñooñu dañ fee ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna yow tam am lu la tax a jóg ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi su ngeen dem ba yemal xiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la doon def ana loo ci defagum kullu ulaayika kaana kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak tax ngay xool ku yor say nopp seetlu la nga cay déglu waaye sa xol bi tabarkalla la nga cay fas di ko def na ko seet ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi te mooy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngi di pant pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru maanaam liisal sa mbagg mi meneen mbagg ma jëm kaw nga mel ni kuy soox te tiitaru doo nga tax yàlla nee na jëru ko sol ay dàll yu réy réy réy di sutal sutalante say tànk di cuux liisal sa mbagg mi ba muy bëgg a laal suuf mbëgg ma leen aj ko ba ca kaw yàlla nee na dox jaru ko dox wala tamsi fil ardi marahan tiitaru jaru ko innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqal arda mënoo xar suuf si tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko lan taxriqal arda mënoo tiitaru ba suuf si walan tabluqal jibaala tuula mënoo gudd ni mënoo gudd ni montagne yi it loo liisal liisal sa mbagg mi loo ko aj aj aj mënoo toll ni montagne yi amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni daju ngor wee mu ne yàlla mu ne kon jëru ko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko bul dox